voilà nuyu nañ leen bu baax yéen ñi ñuy déglu à travers Yo Plus votre chaîne digitale ami cher internaute daal leen jàmm si njotay xibaar benn xibaar bu wàccati ah, jamono ji affaire ah, Sweet Beauté ah, bi nga xam ni mi ngi wëy di lëmb li nga xam ne mooy ëttu yéenekaay yi jamono ji ñuy wax ak yéen ki nga xam ni mooy journal taskatu xibaar bi di Pape Alé yoon teg na ko loxo ba jamono ji ñu wax a yéen ma nga ñuy interroger foofee sa commissariat central bokk na si li nga xam ne moom lañ jàpp ne moom lañ ko tegee loxo bokk na si live bi nga xam ne amal na ko si di affaire affaire Sweet Beauté bi si diggante Adji Sarr ak ki nga xam ne mooy njiital Pastef Ousmane Sonko si rapport interne bu gendarmerie bi nga xam ne def na si ay euh, yëkkati na si ay kaddu daan na si jëmale ak ay xibaar daanaka si wax loolu bokk na si li nga xam ni mën nañ jàpp ne tax na ñu daal di koy teg loxo ba jamono ji ma ngay jàkkaarox ñi nga xam ni ñooy l'enquêteur yi euh, foofee sa commissariat sankat central wéy leen di abonné bépp xibaar boo xam ne ruusati na si jamono ji jëm li si lu mel ne leen ko fii seen chaîne digitale Rio Plus jërë